asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 11 novembre 2019 ñu ñëwee ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb fa leen ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey dafa ñëw ci ki nga xam ne ni day moo fi nekkoon roi des arènes muy Eumeu Sène mu mel ni ki nag moom fi mu nekk ni day ay mbiram critique na wala ak jaxasoo dugg ci bu baax a baax yëglikaay bi nag jàpp na ne noppi ga daal ci côté fi mu nekk nii moom ak ñàkk yëngu ga metti na lool ak itam négociation ci wàllum lamb moom fi mu nekk nii déggee su ko ci moom mu mel ni ki nag kon sunu lamb làmb jàpp na ne kon saison bii ñu jëm moom nar naa nekk saison bu doy doy doy waar ci kii nga xam ne ni moom moo di Eumeu Sène sunu làmb xëy ñëw ci loolu nga keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom moom itam ay mbiram day lu nar a doy la muy Tapha Tine ndax nag sunu làmb ne na kii nga xam ne moo di Ama Baldé bañ na ne du bëre ak moom Modou Lô tamit gën na koo sori moom itam dafa mel ni seen i mbir daal naqari naa lijjanti pour ñu ngir ñu bëre moo tax nag sunu làmb jàpp ne Tapha Tine moom itam de ay mbiram fi mu nekk nii nar naa doy war ba yegg ci lool lool sunu làmb xëy tey ñëw dinoo ko wax waaye bu nu demee fa nga xam ne nag moo di ca Leewtoo TV moom la ñu fay fekk mooy Balla Gaye numéro 2 boo xam ne nii day mu ngay wax ci digganteem ak Aziz Ndiaye jàppante ba nga xam ne am na ci loolu nag ca gàmmu ga la amoon ci kër Aziz Ndiaye Aziz moom mu ngay wax di wax ne day digganteem ak Balla jàppante fa am te yàlla tax ñu bokk géejawaay nekk ay ndaw bëgg a jëmale réew mi kanam rawatina fa ñu dëkk Aziz nag nee na Balla defal na ko lu ne rawatina gàmmu gii muy wàllum jas ne rek lépp xottil na ko ko jox ko ay soxnaam jox ko li nga xam ne nii day moo di ay wuy juram mel ni kii nag diggante ba daal moom Balla itam assumé na ko ne Aziz wuy juram la ba tey ci Leewtoo TV moom daal bàyyi la ko jàppee mu ngay wax moom Balla Gaye numéro 2 waaye tamit laajis na ko ci ay adversaire am rawatina Boy Niang Balla nee na moom daal pare na waaye nag du sax Boy Niang kese waaye képp ku mu mën a doon ngay takk ngemb rek di bëre Balla nee pare na ngir fas yéene jàmmarloo ak yow nu defante ba mu saf sap sap sap loolu mooy waxi Balla Gaye numéro 2 fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV waaye ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne tamit mooy ca Leewtoo point ci ba leer benn gëstu bu mu xëy def ci ñett ñi nga xam ne ku ci nekk nekkoon nga fi roi des arènes moo xam Eumeu Sène la moo xam Bombardier ci Balla Gaye numéro mu mel ne daal ci gëstoom Ndey Kumba Fall moom la muy xam ne ci ñoom ñett ñooñu day sa saison bii nu jëm moom la ko jàngat moom Ndey Kumba Fall dee ki nga xam ne nag mooy Bombardier la moom daa mel ni tamit moom daal saison bii nu jëm day boo sàgganee nar naa doon lu tar ci moom wala adversaire mën na ko caa jafe donte moom taxaw leen ubbil na ñëpp ay buntam ngir nag joxe sens ndax benn at moo ko dese moo tax nag muy xam ne ne daal est-ce que dina gis tamit promoteur boo xam ne dina tëgg li nga xam ne moo di combat bu dee ki nga xam ne moo di ëmmal itam moom saison bii nu jëm mën naa nekk loo xam ne day lu nar a metti ndax moom li leer ba leer ña muy bëri fi mu nekk nii dafa néew bu dee Pikine la du ak ñoom du bëri ak nga xam ne moo di Gris Bordeaux te itam nee na dootul bëri ak Balla Gaye numéro 2 te digganteem ak Lac de Guiers ay mbir la yoo xam ne day dafa mel ni seenu bëriwaat du doon loo xam ne ni lu yomb la doon mu mel ni ki moom tamit fi mu nekk nii day boo bëggee dégg dëgg daal ci xalimaak Ndeye Coumba Fall saison bi ñu jëm tamit nar naa nekk loo xam ne day ah pour mu am ci combat dina jafe lool moom mi nga xam ne tamit muy Eumeu Sène nekkoon fi roi des arènes ka ca des muy Balla moom mën na am mu tane leen ba tey ci xalima ak Ndeye Coumba ndax moom fi mu nekk nii daal nee na moom pare ngir bëri ak ñëpp mu mel ni ki moom utal ko adversaire nar naa gën a yomb sax ni ñaar ñoo ñu xam ne moo di Eumeu Sène wala ki nga xam ne moo di Bombardier ki nga xam ne ni moom adversaire la bëgg moo tax yëglikaay bi xëy ñëw ci moom mooy rëg mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal rëg-rëg moom yoon mu bëgg a jaare ngir dem ci kaw daal du kenn ku dul Malick Niang ngir nag mo li ay géntam gi nga xam ne nii day mooy nekk ëllëg champion bu mag a mag ci làmb ji sunu làmb xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey waaye bu nu continuer ba tey daal daal di continuer ñëw fa nga xam ne ni daal mooy ci sunu làmb ci làmb ji nga xam ne nii day moom moo war dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro ak ki nga xam ne moo di Libidor yëglikaay bi daa xëy ñëw ci Libidor mel ni ki nag Libidor fi mu nekk nii day diggante ak Serigne Ndiaye daal ah ci la sunu làmb xëy tey ñëw mu mel ni ki ñoom ñaar seenu jàmmarloo war naa am yëglikaay bi xëy ñëw jaar ci waaye lamb simple ja ca la ñuy dem li leer nag mooy ki nga xam ne daal moo di Pape ci sunu lamb moom moom wax na ay bëgg-bëggam ak la nar nee daal ñeenti journée daal fas na ko yéenee organiser ren ci li nga xam ne nii day moo di lambi simple bi waaye bu ñu delloo fa nga xam ne tam mooy ca Leewtoo point net ñun ñuy xamal ne day fa nga xam ne moo doon ci adresse Senghor moom lañ fa tegoon ci dimanche ji ñu génne daal wala démb ci dimanche ji ka ko jël moo di Ibou Senghor numéro 2 ci kaw ki nga xam ne nii day moom moo di Thiaw Sow mu mel ni ki nag Ibou Senghor dafa fayu ndax bu yàggul daa mel ni Thiaw soow moomu daaloon na ko mu mel ni ki daal li leer kon loolu mooy li nga xam ne tey moo fi ñëwoon ci wàllum xibaar ci yëglikaay yi ci mbirum làmb waaye li leer ba leer daal dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin santaat yàlla julli ci Moustapha mi nga xam ne mooy sang-sang yi te yàlla ne na ko lu ma bind yaa tax ndax nag gàmm ji nañ ci jàmm ñibbisi ci jàmm di ñaanal xalifa yi ñu yàgg fi te wér lool lool rawatina sëriñ Babacar Sy soo ma ñu fekk woon ca Tiwaawoon sëriñ Muntaxa Mbàkke ma ca Tuubaa kaca na kaca Medina Baye kaca Ceneba kaca Yoff kaca Njaasaan bu nu limee dinañ juum waa jàmm bi sax ci biir lañ bokk ndax réew mi tëddee noonu jàmm dong lañ si bëgg yàlla na yàlla saxal jàmm ji barke yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk waa Leewtoo TV di leen maa ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngay àlloon si revue de l'arène bi nu ànd ak nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si gàmm gi nu jóge maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la nuyu internet yëpp di la delloo ziar si gàmm gi ñu jóge di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku si ñëpp di wax ne tamit namoon nañu la mais namoon nañu internet Leewtoo TV yëpp waaw loolu am na solo ni ñëw nag si eh, jàngatu sunu lamb tribune Leewtoo TV ak Leewtoo point net ñu commencé ak sunu lamb sunu lamb tey dafa xëy na def benn jàngat laajte ni Eumeu Sène est-ce du def saison blanche ndax amul négociation te aussi boobu mu amee défaite ba léegi génnam daal bëriwul si presse bi Babacar. waaw loolu day sunu làmb xëy samp ko ci ab laaj maanaam génnam bëriwul négociation amu ko kon est-ce que du def année blanche waaw loolu nag euh, dañ naan mën na nekk waaye mën naa bañ a nekk tamit parce que euh, mën na am sax euh, tey ñu koy négocier te nit du ko yëg mais dafa am loo xam ne tamit amee des fois faw nit ñi xam dara mais nag noppi bi moom xëy na dafa am loo su la arrivier ngeen nekk sportif de haut niveau am yenn defet yi yaa ngi dégg yaakaar naa laajul nag wax li mu laaj mooy làqute liggéey maanaam li tubaab di wax Euh, il faut reculer pour mieux sauter yaa ngi dégg da ngay dellu ginnaaw pour waajalaat sa tëb parce que da ngaa tëb dal ci xal te olof ne na ku tëb dal ci xal nag dese na la beneen tëbin waaye xëy na bi mu tëbee ci xal la tab bi mooy li ko dal ci digganteem mag Modou loo kon da ko dese beneen tëbin loolu nag soo ko naree da ngay noppi tey liggéey. parce que bàyyeegul làmb te war na ñëw revenir te buy delsi dafa bëgg a indi benn xar man yaakaar naa xëy loolu waral noppi bi kantaan nag année balance bi itam mën naa am du am a mën a bëreel ndax toll na si làmb tey li mu am si làmb defe naa amatul lu muy prouver li ko dese kay mooy xanaa ubbi portam may ñi nga xam ne jàpp nañ ay xale yu yegg lañ mu may leen sens jéem a bëri ak ñoom keneen ki nga xam ne moom nee nañu avenir am si làmb dara wóorutul wóorutul mooy ki nga xam ne mooy Tafatine nee nañu euh, Tafatine euh, Ama Balde bëggul bëreeg moom Modou Lo waxe kasaali ko noonu moom daal nee nañu daal <laughs> moom soo moytul daal avenir am si làmb ji dina xaw takk suuf daal. waaw bu amee da warta am parce que li tax mooy mbër la te mbër mu yor gox la te itam mbër mu mag la ko mbër yëpp yaakaar naa tey muy Ama. mook Tafa làmb a boole ci bu fekkee dañuy wax ci cadre que li leen boole mooy dañu bëri woon ama daan ko ñuy jamono di dox di dox di dox ba tey ñu dox seen combat ba avance war a génn na nag moom moo xam la tax jëlul combat bi mais ñun dañuy ñëw rek ci cadre bu ñu ci ñëwee làmb boole nañ war nañoo bëriwaat ndax làmb day am revanche yaa ngi dégg te ama it na boo ko boo ko laajoon tey du la ne mukk Tapha Tine du sama adversaire xëy na am na yeneen raison nag yu tax mu génn ca combat ba bu dee mook Modou Lô tamit yaakaar naa ne war nañoo mën a bëri te itam ay adversaire potentiel lañu parce que tey bu dee la cas de Modou Lô ak Tapha Tine Modou tey defe naa lamb yi ko ciy gën di tuddal adversaire Ama Baldé la ak Tapha Tine kon yaakaar naa bu fekkee Modou Lô itam dégg guma fu mu taxawee ne moom du bëri ak Tapha Tine dégguñu ko parce que dégg nañ li mu wax sorte bi mu def ci sunu làmb gis nañ ko tamit mu waxtaan ak waa e ñu ciy nuyu Malick Thiandoum suñu grand ak suñu tonton Ngagne Diagne waxul ni du bëre ak Tapha Tine adversaire yi mu war a bëreel daal moom ne na ku ci ñëw dina bëre ak moom te naqariwul négocier kon defe naa loolu su amee nag yaakaar naa Tapha pour man ba tey euh, pertagul ay sansam yaa ngi dégg parce que dafa bokk ci làmb te itam il faut ñu mbëri rek comme li ñuy wax rek il faut ñu nangu jaxasoo bëre ndax revanche su Ama Tafatine bariwul lu ko dàq yaakaar naa diggante Modou Lo tamit ak ki nga xam ne mooy Tafatine defe naa yow soo ko tugg itam defe naa di nga am combat bu baax a baax a baax. waaw suñu jógee suñu laam dañuy dem ci tribune tribune moom dafa def tamit benn jàngat ne Modou Lo ce que dina am sañ-sañ bërewaat ki nga xam ni mooy euh, Balla Gaye mi xam ni daan na ko ñaari yoon euh, bërewaat ak aussi ak ki nga xam ni mooy Bombardier ci instant yi bu nekkee roi. ba booy bëri nag Yékini ñaari yoon ñetti yoon yaa ngi dégg bëreeg yi ñetti yoon moom Yékini waaw bëreeg tey kon defe naa ne c'est très normal Modou Lo mu war a bëreeg Balla Gaye pour la troisième fois xay na ñu bëri nii nii nii moom la ñi mënta yaakaar parce que xalaat nañ ni Modou war na def leneen après ñu doog a bëriwaat yaa ngi dégg kon defe naa loolu Modou Lo moom moo la gën a xam ne moom wala moom ci boppam xam na ne war na mën a bëriwaat ak Balla Balla xam na ne Modou dina bés dina ñëw mu bëriwaat ak moom a bëgg a bëri ak moom parce leer na diggante mag Bombardier tamit yaakaar naa war nañu mën a revanche parce que Bombardier da koo daanoon mais nag xam naa bu rombee ren moom xalaat naa lépp dox fa tàbbi géej ndax Bombardier ci yaakaar naa ci sa xalima yaa ko bind benn at moo ko dese muy saison bii boo ma yeew sax si la ñuy des si Leewtoo point net ndax def nañ fa benn jàngat ñetti roi yi nga xam ni nekkoon nañu ay roi ki si mel ni Bombardier Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye ñoom daal seen dafa xaw a critique ki su mel ni ba euh, Bombardier benn lamb benn saison moo ko desee te moom nee na pare na pour ubbil euh, ndaw yi euh, jox leen chance ki nga xam ne mooy Balla moom moo ëpp chance pour bëree peut-être ren parce pour ñëpp keneen ko xam ne moo xaw a yéem nit ñi daal mooy Eumeu Sène bi nga xam ni moom potentiel adversaire am yëpp Pikine la ñu nekk te moom neen di bëreeg waa Pikine te Balla Gaye moom nee na xalaatul ak bëreeg moom Babacar waaw jàngal boobu am na solo boobu nga def ci ñett ñooñu nga xam ne nekkoon nañ fi ay roi bu ñu jëkkee ci Eumeu Sène moom ci adversité xëy na am na ñu bari ñoo xam ne ni tey duñu mënatul bari ak ñoom ndax waa Pikine moom jëruñoo boole ci lim bi ndax ay rakkam lañ te ñoo dëkk ko fa moom bokkuñu ndax lu mën a xew ndax <laughs> waaw <laughs> yàkkamti bu la taxee war gaynde moom yaakaar naa ne di nga fanaani fu la neexul mbaa nga yendu fa kon moo waa Pikine du làmba beneen bi ci des mooy wax ci mook Balla Gaye moom moo wax loolu boppam ne dutuñ mook Gris Bordeaux moom it ku ne xam ne kon que li tax mooy mook Tapha Tine combat na a may ñeneen sens yaa ngi dégg ay rakkam ñoom guy gi ñëpp ay mbër la ñoo xam ne dañoo yeyoo may sens ak ñeneen te loolu actuellement ëma war na ko mën a def kon tamit dama man daal li may wax bu ñu ko démarché ci combat boo xam ne jaral na ko na kon li ñu wax rek moom fi nekk nii moom Euh, waaw moom ata ko dese at boobu nag bu ci bërewulee moom ah mbiram dina metti te xalaat naa ne bu bu promoteur bi ko war a tëgg ñu ngi dégg na ko moom ak rëg-rëg am na ñu ko bëgg te naa ne loolu tamit war na mën a nekk ci kaw moom comme pare na da koy may sens waaye itam même bu rëg-rëg war na mën a bëri ak ñeneen ndax Bombardier moom ku dégg roi des arènes ñaar yoon ci làmb amatoo looy prouvé ci làmb waaw Babacar suñu jógee nag si Leewtoo point net dañuy dem si Leewtoo TV euh, foofu am nga fa euh, waxtaan bu neex ak ki nga xam ne mooy euh, Balla Gaye doomu Double Less nekkoon l'ancien roi des arènes waxtaan na fa daal waxtaan daal ay potentiel adversaire wax na waxtaan digganteem aussi ak ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye Babacar. waaw loolu keroog la amoon ci Tivaouane kër Aziz Ndiaye Balla Gaye dañu seqan ko man ak Lamine bu Lutte TV ma ciy profité du nuyu waale waale TV yëpp parce que li tax loolu mooy à chaque instant dañuy gis Lamine Babacar suñu dajee ci benn lieu liggéey ba rafet. ñu bokkandoo defandoo ko loolu li ko waral mooy ñoom ñoo doyloo Babacar Babacar doyloo leen parce que lépp fa la doore ci ndimbalal bës Lamine nekk ki ma njëkk jox micro loolu damay bëgg nit ñi di ko faral di xam te nag olof na ne euh, maanaam lu mu mënta doon lu ne yaa ngi dégg bu tey neex ba nga fàtti démb loolu dafa am solo Balla nag wax na la mu wax moom ñëpp dégg nañ ko ci Lutte TV ci Leewtoo TV ak Lutte TV ba tey parce que li tax mooy mook Boy Niang moom nangu na ko waaye nee na sax yemu ca keneen ku mu mën a doon day bëri digganteem ak Aziz ñëw na ci jàpp na ne papa sax la ko jàppee parce que relation bi dëgër na ba yegg ci mbirum famille euh, ba yegg ci mbirum deret kon yaakaar na foofu amul lu ñu fay wax Aziz itam tontu na ci kan ni moom Balla lépp la ci moom parce que nee na gàmmu gi jënd na ay jasneer jox papa yi Aziz yaay Aziz ak ay soxnaay Aziz defe naa nag loolu mooy ànd ànd moom ndey Kumba Fall li koy rafetal rek mooy mu sincère di waxante dëgg dimbalante te yàlla tax yaa ngi dégg mais lépp nag na ko dëggalal te ànd rek te yàlla tax ànd am olof nag dafa am baat bu muy wax maanaam ku la ñee du la dimbali loolu moo ci ne parce que itam Balla xay na bu ñëwoon Aziz wala mu xoolee Aziz am mën na ko bañ a jëndal dara di ko jox ay soxnaam parce que yaakaar naa ne Balla warte mën a ëppale Balla Aziz Balla ëppalewul Aziz am koom ci li ma jàpp yaa ngi dégg mais nag ànd demewul noonu Ndeye Coumba Fall man naa nekk sama xarit ëpp li ma yor ay milliards waaye nag du tere may def ay actes waaw des fois mu jël dara jox Ndeye Coumba ne ko joxal njaboot gi loolu noblesse la kon actes yooyu tamit dañ koy rafet lu parce que ñun moom lu baax rek pour ñun daa war a jëm kanam et puis ko war a magnifier ba ñëpp dégg ko waaw Babacar su kàddu yu rafet yooyu la leen di tàggoo lay jox dig daje suba incha allah balay may balaa boobu muy nuyu sama yaayu mère soo nuyu aussi sama doom Babacar sunu doom moo doon fête anniversaire am démb ci onze euh, xam ni mooy turandoo dundal ba fekkee sa njëriñu bu nu fekkee sa njëriñ euh, sa maam aussi sonn si yow lool moom tamit dal na dund tamit ba fekkee aussi sa njëriñ ba nu lay ba lay takkal soxna Babacar waaw euh, sama yaay di ko <laughs> wàccee soloon na ko trop céeréem boobu nuyu euh, Astandine chéri Khadija Diallo di sama doom Mame Diarra Penda bébé Fallou bébé Rokhaya junior yaa ngi si biir di nuyu daal ñëpp daal laa ñu aussi maa ngi lay nuyu euh, Babacar. waaw waaw loolu dañ naan amin rek si Mouhamed parce que tamit suñu doom la suñu jarbaat la di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba ni nga ko waxee rek mu dem ba ñu koy takkal soxna mère Sow di ko wàccee loolu defe naa mooy lii am di ko wax happy birthday to you si ñu màggatee bu ñu màggalee samedi ba dimanche tombeek bésam defe naa loolu amul hasard kon yal na tur yàlla na wuyoo turandoom barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di nuyu ñëpp mais tamit di profito rek di jaale koo xam ne ni dafa bokk si làmb ñu koy wax Elimane Sarr nekkoon commerçant nekkoon fee ca marché leen génn àddina nekkoon ci jeune amateur yaakaar naa kon ñu ngi koy jaale idaale ñu ngi mi nga xam ne moo nekkoon ancien président bi ak ki nga xam ne mooy góorandooy nekk actuel président bi ñoom Bada ñu ngi bi njàkkal fi parce que ñëpp kuréel yi benn la di leen ko jàll di ko jàll tamit waa groupe ba di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana di ko jàlle waa marché Tilène yépp commerçant yi fa ne yëpp ku ñëpp ñëpp ku mu mën a doon di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ku mu mënta doon nday kumba far rek waaye tamit di nuyu ki nga xam ne mooy tuuti yaay Sarr ñoom Khady Rose Ndiaye ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu di ay taalibe Cheikh di nuyu itam taalibe Baay yi du ma leen fàtte ñoom El Hadj Cissé ñoom Fall ñoom Abdou Kaolack ñoom Abdou Touré Kaolack Fall taalibe am ay soppe Mérina maa ngi nuyu waa waa kër Baay Ñas yëpp waa cene ba du ma fàtte kenn mais tamit di wax Sadio Mané mention espace spéciale mention spéciale saajo man kontaan naa ci xam nga lu tax ma kontaan coow li ci teen bi gaa yi amul baag la waykat bi neen rootal te baawul moom moom boole wu ciy wax def na la muy def xam nga keneen da ngay tirise nga fekk ko fa mu nekk moom wan ko la nga koy wan dem ñibbi noonu la li muy def man kontaan naa ci de mu ngi tabax hôpital ci réew mi di defar école di football di dugal di wane boppam te der bu ñuul la kon Sadio Mané man de fier naa ci bokk ak yow xeet bokk ak yow der bu ñuul. Kumba Faal ak ñëpp mais di waxaat rek big up madridien yëpp maa ngi leen di jaar 4-0 yi neex na Rodrigo foncé il faut foncer fast track rek namit liggéey te bañ a wax. ba soo incha allah. <laughs>